fallu yàgg nga daan um nga lambisoo daan ñoo ngi lay siyaare yaa di samsu soo daan fallu yàgg nga daan um nga lambisoo daan ñoo ngi lay siyaare yaa di samsu soo daan fallu yàgg nga daan kum nga lambi ñoo ngi lay siyaare bismillahi may ñaan yàlla mi di rahman wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa wa mawlana muhammadin al makin wa ala wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi bokki jullit yi fi teew ci ak mbokk yi teew ci seeni xel di jàkkaarloo ak ñoom ci xarala gi noo ngi leen di nuyu nuyu ba gën a sell di leen ziyaara di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di am mbégte ci jataay bu mel nii muy jataayu xam-xam jataayu fàttaliku jëmm ju tedd موي الشيخ محمد الفاضل موي جتايو فاتليكو اك فيوم في تي ادو مو تومبيك خيو خيو بو ام سولو تي دينه موي الاسراء والمعراج تموي رانان بي يونتي بي رانانون صلى الله عليه وسلم جوغي مكه دم بيت المقدس miraaj bi muy jóge gam jóge foofa dem ba juróom-ñaari bi asamaan loolu ci lañ bëgg a waxtaan incha allah mu doon xew-xew boo xam ne lu am solo la ci diin ñu war a taxaw léeg-léeg di ko jàngat di seet nuñ ci mën a gën a jariñoo muy xew-xew boo xam ni dafa mel ni dafa tënk diine jëpp diine yaatu na waaye xew-xewu rañaan Muhammadul yi day xoolee al islam wal xalaat xam mooy rañaan bi ni mu taxawee ci diine dafa mel ni dafa xàjjale diggante coono yi yonent bi doon sonn ak fi ko suñ boroom ubbile bunti tawfiq ndax nubuwa gi bi mu tàmbalee ba ni fi yonent bi jógee mi ngi toll ci ñaar fukki at ak ñett mu mel ni xew-xewu rañaan gi mi ngi xew ci bi nubuwa gi amee fukki at ak nangam bu mel ni dafa xaajale rek diggante fa ñu doon sonale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fi bunti tawfiq ubbi ko ngir nit di ko wis ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woote na fukki at ak nangam waaye dëpp mu woote tawxiid ñu wéetal yàlla woo nit ñi ci ak jaamu yàlla la daldi am jafe-jafe bu dox digganteem ak nit ñi mu daan dundal woote boobu lañu ñu tàmbali ñàkk ñaari bànneex yi gën a fës ci bànneexu àddina yi muy bànneexu alal ak bànneexu njaboot booba dañu ko daal di ñàkk ñoom mu mel ni nag li mujj ci bundu yi mooy bi yonente bi jaaxlee ba ni na dem Taif ca bani Saqif ngir wax ak ñoom ba xam danañu ko jàppale wala déet ñooñu yéesati ngir dañu ko boole ak ñu koy sànni ay xeer ba sonal ko ba mu jaaxlee ba jaaxle daldi di delluwaat nag ci sunu borom ndax lii mu ko yónnee mënu ko ñàkk tasaare tey tasaare gi jafe na lool mu ñaan ñaanam ko yee mu siiw ko mu ñaanam allahuma inni ashku ilayka dufa quwati wa qillata xiilati wa hawaani ala nnaas yàlla yow day laay jàmbat nii ma néewe doole ak nii ma néewe ay pexe ak nii ma ñàkkee solo ci kanamu nit ñi daal yow laa koy jàmbat anta rabbul mustadafina wa anta rabbi yàlla mboolem ñi ñuy néewal doole yaay seen boroom tey diwee sama borom ana ko may booleel ndax danga may booleek ku ma sori koo xam ne su ma ñëwee dafay ñëkkal kanam su ma diggante ak moom wala danga may booleek ab noon boo xam ne lu ma yëngatu mu ay la ko daane ko waaye nag saa boo ma merewul rek baax na boo ma rek baax mu mel ni nag loolu yi bi mu amee suñu borom ngir won ko ni ko bàyyiwuma la te seetaanuma la te maa ngi lay jàppale moo waral mu fayee ko rañaan gii te mooy jëlee ko ci euh, kaaba gi yóbbu ko baytul muqaddas jëlee ko foofu yóbbu ko juróom-ñaar bi asamaan la muy wax ak moom amatul intermédiaire amatul ndaw amatul dara loolu dafa mel ni ab junj la ci ni ndekete euh, coono bu ne jàmm rek lay wundu kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu mu sonnee ñu bon xalaat ba mu jaaxle ba mel ne du gar ci la ko suñu borom wooyee mu tukki tukki boobu yi muy al israa wal miraaj kon ci dal xelam moo tax suñu borom woo ko ba fa bañ ko boleete kenn wax ak moom la muy wax ak moom mu dellu siwaat ngir rek fayee ko ko ci muñ gim doon muñ ak jihaad ji mu doon jihaad ngir jëmmam won ko ay kaawteef won ko ay kiimaan won ko ay kattanam ba lu mu jàppoon dana ko dolli lu ko jaaxaloon du ko jaaxal dajale ko ak mbokkam muy yonente yi ci benn jataay mu doon it seen imaam jiite leen ak julli sa fekk ne moo mujj ci yonante yi lépp ni ab xéwal la boo xam ne suñu doom daf ko defal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ngir muñ googee mu doon muñ lan mooy al isra wal jublu ci al isra bu ñu ko waxee mooy tukki bi yonante bi tukki jógee Makka dem baytul muqaddas loolu la ñuy tuddee al isra bu ñu nee mi'raj mooy jóge ga mu jóge foofa dem ba juróom-ñaareel bi asamaan dem ba àgg ci martaba boo xam ne xam-xamu doomu aadama lott na ci àgg fa ngir dem na ba àgg ci dégg kii kii ci xëlim ak suñu borom kon loolu mooy xajale li ñu tuddee al israa wala miraaj alquran nag tudd na ñaari tukki yëpp wala boog tudd na benn bi muy al isra wutal ko sax saaru boppam muy subhaanalladi asra bi abdihi laylan min al masjid al harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا mu mel ni dafa tudd euh, rañaan bi waaye tudd yit xikma bi tax mu di ko rañaan xikma bi mooy bëgg ko woon ay kaawteef yoo xam ne dana ko yokk yaqeen gu mu amoon day dolli mooy baatu bi li nuriyahu min ayatina ngir bëgg koo dolli yaqeen moo tax ñu rañaane ko mu mel ni kon ma euh, rañaan bi kon yeesu ba suñu borom bëgg woon yontu saasam ci ay kawteef loo xam ne dana ko dolli euh, yaqiin won ko ci ay dooleem ak i loo xam ne doole ju dajal dana tuuti ci moom ci kanam miraaj bi mu junj ko ci suurtu nañ junj bi mu ko junj ci suurtu naj mi wax wax na ci leeralaal na ca lee mu waxoon ni moo tax ma di ko rañaane mu leeral ci saar wii ni loolee gis na ko muy kiimaan yooyu ndax fee dane woon li nuriyahu min ayatina waaye ci surat naj mu wax ni eh, wala la xadra a min ayati rabbihil kubra wax ni moo tax ma rañaane ko wax na ci surat naj mi ni gis na ko kiimaan kiimaan yooyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam a gis ci biir rañaan googu la ci jëkk mooy jëlee gi mu ko jëlee ci Makka yóbbu ko baytal muqaddas ci diir bu gàtt loolu kiimaan la mu desuwaat ci guddi gi jël ko jëlee baytal mu ay baytal muqaddas mu dem juróom-ñaareel bi asamaan dem ba àgg koo xam ne doomu maanaam mbindeef lott na ci yegg fa gis mboolem kumpa kumpa yi ñu ko daan wax gis malaayika yi gis aljanna gis safara gis yonente yi foofee lool yi bokk na ci kiimaan yi ko suñu borom jublu woon a woon ndax mu dolli yaqiin bu mu amoon ca wax yu ga ñu ko joxoon boroom xam-xam yi nag am nañu ak wuute ci ràññatle waxtu waxtu waxtu ràññal yan jamono la am ñu ni at muy jëkk ci nubuwa gi ci la ràññaan gi amewoon am ñu ne déedéet bi mu amee juróomi at ci la amee woon am ñu ne déedéet ci atum fukkeel ci ndugu woo tolloo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab foofu la amee kon xilaaf bi nun lanu ci ñor mooy lii sëriñ bi jàpp sëriñ Fallu jàpp ko njaboot sëriñ Tuubaa bi jàppal na ko loolu yi lañu jàpp ci juyoo yi nga xamante ne moom la borom xam juyoo ci nan la demoon am nañu jàpp sax ne fukkeelu at ba ak ñaar ci nubu wa gi ci la xew am ñun dem na ba fukkeel ba nañu wooyu bu yàgg loolu wuute gi ci saaba yi tàmbali woon ndax gis na ndax rañaan gi jëmm ji la woon ak ruu gi wala gi moo dem waaye li nga xam ne moom la borom xam yëpp dëppoo li ëpp ci mborom li ñuy wax mooy jëmm ji ak réew bi lépp demoon muy dëppoo ak li sëriñ bi wax ci xasida ko wu ñuy wax mawaay bi naafia ne bil gis ñu jaxraa la ba muy dem yaram bi demoon direct kon rañaan gi ñu ngi koy limaale ci kaawtee fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mujisaat yi ko suñu borom terale ci la ñu koy boole wala sax ñu ne mooy njobbaxtanul kaawteef yooyu xissa na mu deme nag ginnaaw bu ko alxuraan junjee ndax alxuraan lu ci ëpp day tënk waaye détail bi am na ci téere hadis yu bari yoo xam ne détaillé nañu ko euh, na mu demee mooy yonente bi sallallahu alayhi wa wax ni damaa nekkoon ca xatim tëdd fa xatim nag bu ñu ko waxee mooy koñ bi koñu kaaba bi digganteem ak maqaam Ibrahim loolu la ñu wax xatim yonente bi wax ne foofu laa tëddoon am ku ma dikkal bi mu ñëwee xotti diggante fii ba fii wax ne mi ngi tàmbalee ci bëli bi xotti ba xotti dana ba ci biir génnee ci moom génnee xol bi nee na ñu indil ma benn kopp or bu fees dell akub ngëm raxas sama xol ba mu set ñu delloo ko daal wax ni ñu indil ma benn dàmba warwaay boo xam ni moo sut mbaam te àggul ci baxla waaye war waay bu weex la boo xam ne moo sut mbaam te àggul ci baxla mu doon war waay bu gaaw boo xam ne fu ab gisam yegg dana fa teg ndëggoom nee na ma war ba dem ba baytil maqdis ma yeewu ko ca buntu jàkka ja fi yonent yi daan yeewu daal di tàbbi dugg ci biir jàkka yi julli fa ñaari rakka daal di génn bi ma génnee jibril andil ma ndabul am ñollu ak ndabul soow dafa andi ñaari pot benn bi def am ñollu benn bi def soow nee na ma jël soow nee na mu ni ma tànn nga diine ji ñu la tànnal yàgg saw xeet mooy diine fitra nee na jigéen noonu la àndee man ñu wàcc ci kaw alxuraan ba Jibril àgg ci premier asamaan sama duniyaa ubbiloo ba mu ubbiloo ñu laaj ne ana ko kan la mu ngi Jibril ñu ne ko koo àndal mu ne Muhammad ñu ne ko dañoo yónnee ci moom wan na bi sax daal ni maa ngi dalal jàmm sama doom bu baax ji di yonente bu baax bi noonu lañu daal di déparé waat dem ba ca asamaanu si ñaareel si nee na mu ubbiloo bi mu ubbiloo ñu ne ana kooku balaa nuyoo daal cay teg ni marhaban bihi wa ni'mal majii'u jaa ñu daal di jàll ba ñu dem ba ca asmaanu si ñetteel sax foofu yi dañu fekk Yuusuf ba ñu demee Jibril ubbi la bu baaxoon defe ñu ne ana kooku mu ne mën a Jibril koo àndal ne dañoo yónnee ci wa ni'mal majii'u jaa dañuy ubbil ba ñu duggee dañu fekk Yuusuf nee na Yuusuf dafa mel ni taaru adduna bu ñu ko xaajoon ci digg ba gën wàll moom la ñu dox nee na mu marhaban bil axi saalih wal nabii saalih mu ne maa dalal jàmm sama mbokk bu baax bi di yonent bu baax bi loolu la ñuy ba ci ak maanaam su ñeenteel si ba mu jógee ci dañ ko baaxoo defe mu ne ma kii sa mbokk Haaruna euh, nuyu ko naan euh, ma nuyu ko mu delloo ma am nuyoo bi ma delloo am nuyoo daal di marhaban bil axi saalih wal nabiyyi saalih asamaan boobu juróom benneel si kër Moussa ba mu ubbiloo ba dugg léegi ñu laaj ba mu la tax a jóg danaa xam ne nguur suñu yëngu mu delloo ma ab nuyoo daal cay teg ni marhaban bil ibni saalih wal di saalih daal ni maa ngi dalal jàmm sama doom ju baax ji di yonente bu baax bi nee na noonu ñu yëkkatil ma sidratul muntaha sidratul muntaha ak déem la goo xam ne bañ ma ko yëkkatalee gis naa ni ay meññatam mi ngi mel ni koppi hajar hajar nag ab dëkk la ca Bahrayn ni eh, xul la ay kopp ay nattukaay lañu daan natte waaye du daan rëy mu jubloo wax ni dafa rëy ba mel ni koppi xëjër waaye noonu it xob ya dafa mel ni noppi ñay nee ñun ma lii mooy sidratul muntaha nee na foofii nag ma gis ñeenti dex yu feeñ ak yu nekk ci biir yu nëbbu nee na ma ne jibril lii lu doon nee na ma ñaari dex yu nëbbu yi ay dex lañu yu nekk ci aljan ñaari dex yi feeñ nag mooy dexub niil ak dexub furaat nee na foofu ñu yëkkatil ma baytil maamuur gis naa ni bis bu set juróom-ñaar fukki junni malaayika dinañ ci tàbbi te ñu ci tàdd ba génn duñ ci tàbbiwaat lépp ci kaawteef yi ko suñu borom di woon ci la bokk ak mbindeef yàlla yi ni ñu bare juróom-ñaar fukki junni malaayika dinañ ko dugg par bis te ñu ci dugg duñ ci duggaat bi mukk nee na ñu andil ma poto am ñollu ak beneen pot boo xam ne soow ci nekk ak potu lem nee na ma tànn soow ma nee na jibril ni ma li nga tànn de mooy diine ju jub ji nga xam ni ci nga war a nekk yow ak yëg yow ak saw xeet yaa ak saw xeet ci diine ju jub de ci ngeen war a nekk ci ngeen di dund nee na foofii nag la ko suñ borom wax yoo li mu koy wax yu euh, digal ko juróom fukki julli nee na ma dellu bi ma dëppee ba àgg ca Moussa mu laaj ma ni ma ana lu ñu la digal nee ma ne ko juróom fukki julli mu ni ma sa xeet wi ëtt nañu juróom fukki julli par bis ni ko giñ naa ci yàlla ni nit ñi nattu naa leen jëkk la ba ni Israël xamante na ma ak ñoom lu ne daj naa ko ci ñoom wóor na ma ni boo fa yóbbu juróom fukki julli yi du jàll ndax duñ ko def kon dellu ci sa borom laaj ko mu defal la ak woyofal loolu moo saw yant bi dëpp delluwaat ci boroom sàkku ak wayafal suñu boroom wàññeel ko fukk mu des ñeent fukk mu dellusiwaat bu mu ñëwee ba ci Moussa Moussa ni ko lu ñu la wax mu ne ko wàññeel na ma fukk mu ne ko ñeent fukki julli ëpp na boo ko yóbboo duñ ko def nit ñi xam naa leen dama jànkoonteeg ñoom bari na dellul ci sa borom mu wayafalal loo ko ñaan la la mu ne nee na Moussa bi mu ko waxee loolu yant bi sallallahu alayhi wasallam delluwaat ci boroom waxaat ko ñaan sàkkuwaat ci maag woyofal mu wàññi ko yeneen fukk bi ñaar fukk yi wàññi ko mu ñëwati ba ci Moussa mu ni ko ñaata mu ni ko fanweer mu ni ko fanweer ëpp na dellu mu dellu bi mu dëppaatee bañ bañ wàññee fukk yi mu des ñaar fukk mu ñëw ci Moussa Moussa ne ko ñaata mu ni ko ñaar fukk mu ni ko ñaar fukk ëpp na de nit ñee ma gis boo fa demee yóbbu fa ñaar fukk jullit ko julli léegi demal ci sa borom mu wàññiwaatal la ko mu dëppaat ñëw ci boromam mu wàññiwaat yeneen fukki julli mu des fukk képp mu ñëw ba ci Moussa Moussa ne ko ñaata la wax mu ne ko fukki julli mu ne ko fukki julli ëpp na li ma lay xamal mooy boo ko fa ko def ndax bani Israël jànkuwante na ñoom lu ne naa ko fa juróomi fukki julli yii boo ko fa yóbboo duñ ko julli ci sa borom nee na mu delluwaat ci borom borom bi wàññi juróomi julli mu des juróom ba mu desee juróom mu des ba ci Moussa Moussa ne ko ñaata la wax mu ne juróom mu ne ko juróom sax ëpp na juróom yii boo ko fa yóbboo du jàll da ngay dellu mu ne ko nag damaa dellu ba rus damaa delluwaat fi mu toll mu ne ko damaa dellu ci sama borom ba rus na maa dellooti ci moom di ko wax benn baat ndekete loolu kon moom la suñu borom jublu woon kon loolu yi mooy ni yonente bi sallallahu alayhi wa ci détail euh, al isra'u wal mi'raj mu des nag yam gis ca biir tukki boobee te nettali ko ci yeneen barab yu bokkut ak biir barab boobu ndax la ca jëkk kon mooy soow war nañ ko soow ak akum ñoll mu tànn soow ma ñu xamal ko ne ko euh, lii mooy diine ju jub ji ñu la tànnal ak saw xeet ni ko nag boo tànnoon leneen boo tànnoon ñoll mais sa xeet yu dinañu bew te doo ko mën a lijjanti waaye kon tew tawfeex ji mooy tànn gam tànn soow ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis ñeenti dex ñaar yi nëbbu ñaar yi nekk ci bitti ba mu laajee ñaar feeñ feeñee ñu ne ko mooy niil ak frat loolu nag lenn ci borom xam-xam dañuy wax ni lii maanaam gis googu mu gis ñaari dex yooyu muy niil ak furaat mooy dañ ko jubloo ne ko saw xeet sa ñi dëkkee foofu fii ci ñaari béréb yu naat yooyu muy niil ak furaat danañ bokk ci saw xeet di la jàllaleel sax sa sa lii ngay woote muy risaala bi muy mbolo ci gina mbolo ñu ñew ba jall ñeneen ñi waaye loolu lañ ko jublo waaye jubluñ sax ne jëmmi tax yi day fàqe ci aljanna di fenc fi loolu ñu ñen na ci ko xam wax ne la ca des mooy tukki boobu yonte bi saasam gis na ci àjjana ak safara gis na malik mi yo safara mu doon ko xamni ku ñang la ree sax du ko def yonente bi won nañ ko gis na mbolo mu yor tuñ yu rëy yu mel ni tuñu gileem di jël ay doj di ko tàbbal ci seeni gémmiñ saa bu tàbbee ci gimiñ gi day sar jàll jaar ci suuf génnaat mu laaj Jibril ni ko waaw ñii ci liñ nekk mu ne ko ñii mooy ñii lekk alali yi te teguñ ko ci yoon mu gis fa ñoo xam dañoo biir yu yoo xam ni fa tëdd wëlbati képp duñ ko mën mu laaj Jibril ni ko ñii ñan la mu ne ko ñii mooy ñii lekk riba lekkati riba yi lañ ko misaale noonu jamono bu ne it nit yi firaw na dañuy jaar ci seen kaw ci biir safara ñoom lekkati riba yooyu noonu la gisee ay mbooloo yoo xam ne dañoo teg ndawal gu rafet ci seen wet demaat fee teg fa medd mu xeeñ ñu bàyyi fa ndawal gu rafet ga di lekk ci medd mu ne Jibril waaw ñii nag Jibril ni ko ñii mooy ñi nga xam ne dañoo am dañoo am lu leen lew ba nag bàyyi ko fa di wuti lu araam di njaaloo mu ne ko njaalookat yi am lu leew di wuti lu araam ñooy ñii misaal mii la la jox ñi gis ndawal ko gu gu set wecc ba noppi bàyyi ko fa bi sallallahu gis na mbooloom jigéen moo xam dañu dañu leen wékk seen i ween lañu wékk ñuy ñuy xandaalu ni mu ne Jibril lii lu doon mu ne mooy jigéen ñi nga xam dañuy sëy ba noppi fexe bay indil seen i borom kër ñoo doom yoo xam ne borom kër gi juru ko nekk ci kër di def naka sudul noonu ba indil boroom kër gi doom ju borom kër gi jurul misaal moom mii la ci yàlla wane noonu ba won ko yonente bi sallallahu alayhi ñu takk leen takk seen i wet ñuy ñuy ñuy ñuy xalaat xandal noonu lañ ko wone mbooloo moo xam ne dañuy ji mu daldi sax léegi màgg léegi ñu góob léegi mu melaat na meloon mu laaj ni ñii nag ñu mu doon Jibril ni ko ñii mooy ñiy jihaat ci yoonu yàlla lu lu ñu lu ñu am ci ab yoon rek lu ko ëpp ngi leen di xaar mooy ñuy jihaat ci yoon yàlla lépp luñ def rek dañ leen koy yeesu laatal mu des kon yonente bi mu ñëwee ba bët setee ba mu nettali ko waa Xuraysh yonente bi dellusi jóge ci tukki mu barkeel boobu yi mbooloo teew ci yéefar yi Mut'im ibnu Adi ca la bokkoon Amr ibnu Hisham di Abu Jahlin ca mbooloo ma la bokkoon وليد بن المغيرة تلا وهي موني لين جاك جي فلا جلعه جلعه في فجر تدقن تبدونا في بيت المخدس دمنا في جلو نيال بأسمان جسنا أي يونانت مو إبراهيم أك موسى أك عيسى جلدنا لين جيت لين نيال لك وخد نيوم نيوني كي نك دي ميجي بغت تلا بيت نيجي حمر بن حسام أبو جهل ملني كو كوي سبوت نيكو لغي نيمل نو عيسى مل يونت لير كو كو عيسى ميجي مل نانغام أك نانغام بك سمكو دون نيرو دال urwatu bnu mas'ud as-saqafi yi laa koy nirole mu ne ko musaa noonu nag mu ne mu ko am yaram la te njoole te mel naa nangam su ma ko dee nirole day mel ni kenn ku bokk ci waa Chanwa noonu laa koy nirole mu ne ko Ibrahima mu ne ko Ibrahima moom boo ma xoolee mel na ne gis na ko gisuma ko ma ko gën nur waaye loolu ñu bëgg koo ba ndox daal ba léegi ne ko léegi baytul maqdis nga wax fa dem nga fa léegi nu mel suñu borom wuññal ko ko mu mel ni day jaakaarloo moom. te am na ñoo fa demoon ba xam na mel waaye yonent bi sansan bi mu ko leeralee benn baat mënuñ ko ca dindi ni moo ni wax na dëgg nii la demee de te xam nañ ni mosu faa dem ci saayir noonu àgg nañ sax ci ni ko léegi ñun suñu bi demoon comme yoonu saam nga saam nga jógee te la jëgg bi demoon léegi jëgg bi fu mu toll xanaa war ko gis ci guddi mun leen jëgg bi mi ngi barab sàngam léegi gileem gu mel nangam moo ko moo leen di jiite bés sàngam dinañ agsi fii ci dëkk bi ci ni ma ko nattalee waaye loolu lépp nag bañ ko bañ ko déggee gisee ko noonu it taxut ñu gëm mu mel ni kon ak ngëm suñu borom moo koy baaxee nit waaye luñ la mën a wax lu mu yanu yanu maanaam bu fekkee war a gëm doo gëm ab boo ko waxoon li gën a jóg day jàpp ni wax nga dëgg yaay nga waaye li nga wax dëgg danaa yaay nga ma waaye li nga wax dëgg day jàpp ni da nga ko waaye li nga wax dëgg day continuer di seet pexe yu mu la war a mën a yaay beneen moo tax am na lenn ci borom xam-xam yi ñu wax ni xew-xew boobu nag bi mu amee nekk na fitna ci ñenn sax ci ñi gëmoon ndax am na ñoo xam ne fa lañ doxee nag murta daal déet kii nag mi nga bëgg a ëppal ginnaaw mi ngi wax ay juróom-ñaar asamaan doon li mu doon wax ñu di ko jàpp ko si ñëw dañ ci biir loolu ñu dem ci Aboubacar ni ko xanaa li sa waaj li wax dégg nga ko mu ne ñu ni ko nee na jóge na fi dem mm, baytul maqdis jóge na fi dem juróom-ñaar bi asamaan gis naa ne mu naa mun leen waaye moo ko wax ñu ko mu leen kon wax dëgg ñu ko da ngay dëggal ni jóge na fii dem juróom-ñaari asamaan mu ngi leen la ma koy dëggalee mu ëppli xibaar bi mu may jox mu jóge ci asamaan suba ngoon saa bu ko jox ma gëm kon loola moo gën a dëgg moo moo moo moo ëpp lii ngeen ma ngeen ma wax ni nee nañ bés boobu lañ ko tuddee Abu Bakar lañ tuddee Abu Bakar mu nekk as siddiq ñu di ci jàngee juróomi leçon laa ci tiré benn bi mooy li arab di wax baax de kulli min mihnatin minha ndekete moom la suñ fol daan wax ni ndekete bala ni bala ni nox nox daan ni war war ndekete balaa balaa neex fokk kon métit bi yàlla jaarale yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci ko bu ndoxatal ko euh, sonal ñi nga xamante ñoo ànd ak moom ndekete lim ko nar a fayee mooy sax bañ see wut intermédiaire seen diggante bañ see doxal seen dara seen diggante woo ko ba mu ñëw mu woon ko lim koy woon jox ko lim koy jox kon ndekete nattu bee lam jubloon a wundu lépp nii mooy xéewal lay wundu te ginnaaw bu nattu bi jàllee it muy eh, buñ ko nattoo ba israel miraaj ñëw ginnaaw bi la mbooloo tàmbalee fàq diggam ginnaaw bi la gàddaay dem madina ginnaaw bi mu am ay ansaar yu ko jàppale daanaka dina ja foofu la tàmbalee di dox ba ne moom yonent bi ba àgg ci lam doon woote lépp ñu wuy si ko te loolu kon rañaan gi dafa doon point boo xamante ni dañuy wéere rek jóge ci métit ya pour dugg ci ay bànneex dana ci feeñe it ñu jàngee ci njàmbaare bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax biir yéefar yaa weddi gañ ko weddi mu wóor ko ne bu waxee bàyyi lañ cee teg xam na ko ba noppi ci teewul mu mu mu wax leen rek la wér loolu lañ cee jànge ñun mooy ndekkee dëgg boo ko amee ba nattablioo ko xam ne li dëgg la ko bañ wax fenn waxal kuy gëm-gëm ku gëmut gëmut waaye sa dëgg jërul na ko ginnaaw xool nga ba gis ni lii dëgg rek amatul ay naaf la fu la neex mën loolu la ñuy jàng ci déclaré gëm ko déclaré ci kanamu yéefar yooyu ñu jànge ci it yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli gim julli ak mbooloom yonente yooyu ba noppi jiite leen doon seen ilimaan dañ caa dégg ni ndekete ñoom kon jébbal nañ ko dossier bi gëm nañ ni mooy ki mujj ci yonente yi te moo leen gën te diine mit mooy folli sharia yépp benn sharia di ko folliwaat loolu kon danañ ko ci dégg ci topp gi ñu topp ci ginnaawam julli waaye danañ ci dégg it ne ndekete diine yi yàlla wàcce woon yëpp benn la ndax ki ci mujj la yàlla jiital ci seen kanam mu jiite leen loolu day tekki ni kon benn diine la benn diine la yàlla wàcce woon takkee gi suñu borom takkee min al la xaraami ila al masjidil aqsa danañ ci xam solo su masjidul aqsa am ci jullit yi bu juróom-benneel bi nag maanaam importance su julli lañ ci xamee ndax lu ne yàlla di daan ni ndaw mu ñëw wax ko yonente bi bi ba war koo digal julli nag woo ko ba mu ñëw mu joxal ko ko boppam kon danañ ci xamee solo si julli am léegi kon loolu mooy mujjug al isra wal miraaj muy guddi gi sëriñ Fallu gane àdduna mel ni kon ngëneel li ko suñu borom tànnal xam loolu yi dana tax loo xamoon ci ngëneelam da nga ko dolli loo xamoon ci ngëneelam da nga ko dolli koo xam muy guddi googu la suñu borom tànnal sëriñ falu mu feeñ ci muy nuurun xadaa nuurin doon it eh, fadlun ala fadlin mu mel ni eh, yeggale gi sunu borom eggalee jumaa ji ci loxoom ak jiite gi mu ko jiite moom sëñ Fallu loolu buñ ko nattalee ak julli yooyu nga xamante ne moom lañu wàccee ci guddi gi mu feeñee jamono danañ gis ne sunu borom du def dara ci ak neen lu mu def rek am na lu mu ci jublu loolu kon danañ ko ci gise danañ ci gisee yaatal gis Sëriñ Fallu yaataloon ay mbiram waxu ba ba ba frontière yi war a dox diggante nit ñi mbaa diggante sax tarixa ak tarixa mu mu bàddi ko loolu danañ ko jàngee ci bàddi gi yonente bi sama sama bàddi baaraas ci digganteem ak yonente yooyu ba lépp doon benn kon guddi gu am solo ngoog ñu dégmal ko Sëriñ Tuubaa fonkoon ko lool bari na xasida yoo xamante ne ñu ngi ko tënki Kazu Rajab ci biir nooru daara ni gis naa ci ay bayit yoo xam ne mi ngi ko tënkee kazu rajabin akramani gis naa ci biir mafatihul bisri bi sëñ bi am ci bayit yu mu tënkee yow mu rajabin te tàmbalee ko ci yaa faadilan fadalahul xallaaxu yaa man bihi faaraxanil imlaaxu mu junj fi sëñ Fallu junj bu leer loolu kon mënees na ci jàng téeméeri leçon waaye lii mooy li ma jot a jàngat li des ma bàyyi ko ci loxo yi ñi koy déglu ñu jàngat seen jàngati bopp di ñaan yàlla mu defal na ak dégg ak topp ak jariñu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.